day daw kay. jàmbaar production lan moo leen dugal ci làmb. waaw Lamine jàmbaar production bu ñu ne label bu bees la. doo ko ñëw si làmb. ñëwuñ si làmb nag pour jouer ay secondes. amaana ay nitu làmb ñoo ko. waaw ñii dañu def parcelle ñii ñii ñii label bu mag la. amaana tey mën nañu ko si may wax ëllëg mën na gis keneen muy wax. beneen jour mën nga gis keneen bi parce que tamit. Thiandou euh, label bu mag la te tamit yoo xam ne yu engagé nekk. a gis personne leen gis ne gis keneen. tamit ñëwul si làmb ko diggante ak si nekk def nañ ay jéego xëy na seen limite ah, mu dem fële rek. di affiche boo xam ne tamit affiche bu intérêt. Ah. waaw tey jii muy sox mérité na kese cinquante millions muy franc mérité na ko parce que ñii ñooy bëri muy neex ñoom ñooy indi euh, public bu doy waar si làmb kon nag li ñu leen fay lu nekk jandal maara di lancer nag appel sponsor yi parce que tamit lii mooy tamit boo xam ne amateur yëpp dañ ko bàyyi xel mm-hmm. Mm-hmm. sponsor yi ñu ngi leen di lancer appel ñu dugal seen loxo parce que tamit nekkul combat boo xam dafa facile pour décrocher comme moom lañ lay moyen pour décrocher seen objectif lan la jàmbaar objectif bu jàmbaar waaw pour nekk leader parce que tamit comme ni ma ko waxee ñëwul si lamb jouer ay second rôle dama ñëw si lamb pour nekk leader ñëwul lamb euh, fokk Franc kese dugalul si lamb ah, amaana ñu ngi si yeneen combat yoo xam ne sax ñu ngi koy ñu ngi koy démarché xëy na bu suñu déroulé programme bi rek dinañ xam ne jàmbaar contribution dafa ñëw si làmb pour toog ñëw si làmb pour am beneen melokaan bu mu yóbbu làmb parce que tamit gis nañ saa su nekk même facette ñooy am si làmb moo tax tamit bëgg nañ ay innovation créer loo xam ne daawul am si laaw moo tax tamit euh, en fait ñu ngi ñu ngi si liggéey bi daal di waa jàmbaar production. jërëjëf dinañ ci ñëwaat bu ñàkk bu ñu xamante ne ñu posé question dinañ la posé question. Franc maa ngi lay bëggee ci loolu rek. waaw Lamine maa ngi lay nuyu nuyu staff bi teew nuyu ménagère nuyu tamit sama représentant mooy Mata Ndiaye. ci sama nuyu sama ménagère as nuyu sama jógee nuyu Parcelles Assainies di nuyu ñoom ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di profité waale loolu di di wax sama mbokk chrétien bi bon carême di ñaan yàlla lépp luñ ci ñaan yàlla suñu borom na yàlla na mu ñaan te dëkk bi daal jàmm rek moo fi yàlla lan moo la boole ak soxla faral. la la champion la dañoo war a bëree dañuy bëree soo yàlla 19 toog ci kaw ma xoy la leen quoi. ak dëgg la waroon njëkk laaj sax ngay jàmbaar bi nga xamante ne gàll ci la amul ko ko gisee. waaw vraiment ñii dañ leen war a chapeau xam te aussi tam dañ leen war a félicité parce que du yombul comme ni ko Mor waxee léegi ñu bëri la kenn kese su ci nekk mën ñu bëri la bu kenn kese te bu ñu demee ba jël seen moyen yi ci ko def ci biir dañ leen war a jàppale aussi tamit sponsor yi ñëw jàppale rek te lii ay dama def ko ci ma neexoon ñoom def ko feneen dañoo ñëw boobu ci dëkk ci sport nañu ay am na ay jeunes yoo xam ne ñu ngi fay bi ñu soobee yàlla nga xam mais dañoo ñëw investir ko fii comme pour maanaam dëkk bi mënoon neex daal dañoo ñëw pour dimbali daal sport bi merci mu noonu xam di wax ñëpp ñu jàppal leen aussi comme laa leen yàlla dafa leen jàpp macha allah loolu am na solo problème bi fii lay démarrer ñu war a ah. non xaaral am na micro wala di wax onze bi la bisimilah dina wàll yàlla waaw jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul maa ngi santaat Serigne Touba bu baax a baax a baax di sant suma yaay ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di ñaanal suma papa bi tëdd suuf sedd ci kaw bépp doomu aadama bu tëdd ngay chrétien ngay jullit ngay loo mën a doon yàlla jéggal la say bàkkaar ci doole sëñ Tuubaa di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg xam nga ñu ñi fi teew ñëpp ñi fi nekk ñëpp xam nañ seen tur mais ñu fi jaar ci tur yëpp ñu leen ñu xam nga di leen wax ni toogaay yi yàgg na xaar yi yàgg na di nuyu suñu papa jàmm di CNG xam nga di nuyu Papa Ndiaye sama xarit di nuyu Franc nuyu Sow Fall bi nga xam ne xam ne sama kilifa la ñun ñëpp di sant promoteur bi di jaajëfal nag sama ménagère waaw di ko sonn ci man pour yàgg daj bi ñëpp sama carrière di ñaanal aussi sama nijaay bi Joola yàlla guddal fanam wéral cëram ak suma mafia bi yëpp bu ma lim kenn beneen chose bi may wax dafa bëri suma xarit yoo xam ne tey jaar nga leen a féete ginnaaw ku ci mel ni Ousmane Tine daan daj ci samay gis lu nekk ku ci mel ni suul xam nga ay ñoom Seexu suma rakk Bébé Diène suma xarit mm-hmm. ñoom ñëpp mënuñoo lim ñëpp ak Birahim suma xarit ñu leen di ñaanal foofu ngeen nekk yal na leen suñu borom taxaw ci doole Sëriñ Tuubaa ba ngeen ñëwaat ci jàmm ak salaam te loo leen bu leen fa yóbbuwaat yal na jàmm yàgg. merci beaucoup jàmbaar <laughs> leen di ñaanal. tawfeex rek. ndax ay jàmbaar lañ def ndax combat bi gëful bari na. non ay jàmbaar lañ. te combat bi aussi ñaari jàmbaar a koy bëri. waaw bu ñu naxal. daa teg ay kuréel woon ak sama kuréel. comprendre nga. foog nga ñëwoon ma ci waaw. xam nga combat bi ñu décroché ñoom bëri nañu ko bëggoon a décroché. mais comme li mu wax rek. xëy na yàlla moom la dogal dogal mu décroché ko ak des saafam. dañ leen di ñaanal tawfeex lépp li ñu séntu ci soog ak Franc. ba tëgg ko yàlla na ko suñu borom mottali ko ba ñu gis sax lu seen yoon te dina am ci combat bi ndax combat sopp ak France soxlawul fan si la waaw lan moo leen boole yéen ñaar ah li ñu boole wax nga ko France daal te ay preuve champion d'Afrique na ñu jox ko lépp nangul naa ko bu ñu barrières yi maag nekk ci biir kàmb suuf su jàmbaar jàmbaar koy feeñal loolu rek laa am lu aja Mohamed bu baax a baax ah. may nuyu may nuyu yëpp di nuyu assistance bi di am mbégte bu rëy nag ci tey li nga xamante ni mooy jàmbaar production defal nañu ko tey parce que ñun làmb rek lañu am ndax làmb ku ko yokkul yaa wàññi ndax ku xool diggante sopp ak Franc dafa nekk combat boo xamante ni amateurs yi dañ ko yàgg bëgg am lu làmb yàgg ko bëgg surtout les sénégalais de la diaspora dañuy yàgg a réclamer combat boobu kon tey jàmbaar production bu ñëwee indi ñu combat boobu duñ def lu félicité leen di leen ñaanal combat bi nag lépp lu ngeen ciy séntu yàlla leen ko yàlla defal. ndax euh, yombul tey structure bu bees ñëw décroché combat bu toll yi kon tey képp koo xamante ni da ngay dund làmb di doomu réew mi muy suñu cosaan da war a ñëw jàppale jàmbaar production surtout ñi nga xamante ni ñoom ñoo euh, ñoom ñooy euh, yor wàllu sponsor yi sponsor yi ak lu làmb yëpp dañoo war a daw tàllal leen loxo ñu ñëw jàppale leen rawatina combat donc ñu ngi leen di ñaan ñu leen jàppal leen bu baax a baax a baax. question bi mooy bi may bi may njëkk a posé. question bi may njëkk a posé. question bi may njëkk a posé ñu euh, ko njëkk a njaa ko njëkk a posé parce que combat bi dafa nekkoon ci diggante presque quatre promoteurs ñu koy xëccoo. mu fexe ba décroché combat bi tey jàmba production ñu décroché ko naka ngeen def ba décroché combat boobu bi ci des mooy sook moo ko moom sook yaa ngi bëreeg koo xamante ni mës ta jël ko ci làmb. est-ce que pare nga pour jàkkaarloog sa adversaire xeex ak moom bu fekkee bëgg nga ci moom dara xeex ak moom bërit moom bi ci des Franc moo ko moom Franc dañu gis ni sa combat ak la de Guiers numéro dafa sori woon lool ñu di ko dox combat boobu am na ci ñoo xamante ni ci amateur yi moom lañ doon xaar mujj gi nga wàcc ñëw jël ki nga xamante ni moom mooy Sokh ndax làmb moo leen boole lan moo tax nga bàyyi fi Lac de Guiers ñëw jël ki nga xamante ni moom mooy Sokh. loolu mooy sama question. aji Mor mu gaaw waxal ci kaw gars yi mu ngi wax. waaw Lamine avant tout Baye Balla maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw di gërëm tamit euh, restaurant bu mag bi ñu naan. waaw wax dëgg yàlla gis nañ seen taxawaay. waaw gis ko si wàllu man seen tey lañ teg suñu wax. ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm di gërëm di waaw beneen bi tamit euh, mooy Sokh Franc mën nañ ne comme ni ma ko waxee sànq en résumé quatre promoteurs ñoo si nekkoon. xëy na suñu borom jàmbaar production la ko jëmee tamit euh, ku xam euh, moo xam ne tamit si làmb la nekk tamit xam combat bi fi mu tolloon amateur yi ak fi mu tolloon si promoteur yi si xëccoo xamoon tamit kase mbëri xam yemoon pour yeggal ko nag ñu yomb la doon nekk waaw ñu yëkkati ay moyens yu bari def parce que tamit kii di soog amaana loo ko fay ñëri ko parce que tamit mbër mu bokk si làmb mu bokk si làmb kii di Franc dafa bokk tamit si làmb loolu lañ fay mbir danañ ko fay nañ fi mooy cinquante millions trente millions di indi seen stade si loolu duñ ko fi liy soq di animé si làmb duñ ko animé Franc pareillement mooy ça veut dire loolu moo ñu si gën a dugal poussé ñu te si affiche bi kasa la yàpp ñu si yeneen affiche yoo xam ne jàmbaar production ñu ngi si te bientôt di leen fësal yeneen affiche yoo xam ne ah dèjà si ak yi daal waaw soq question bi Franc mosul a loolu yaa ngi ñu koy joxe Franc mosul jël ko ci laaw. non loolu moom du du man maa koy laaj jëlee ko nu muy def. en tout cas li wér. mais di ko jox ay coups. may ma tuuti rek li wér de wóor mooy. waaw man jël naa ay coups ci làmb ba taay. di ko dégg ba yàlla may ma ndam. waaw yii ma ñàkk ci ndam. ki nga xam ne nag bu jëlagul ko nu muy def moo xam bu ko jëlee day taw moo xam bu ko jëlee day tëjee en tout cas li wér de wóor mooy. combat jàmbaar lay bëre. pare nga daal pour jox ko ay coups waaw loolu mooy question bi ndax pare nga pour dëggal moom dëggal sa bopp xeexal moom si suufu arène nationale bi. xam nga tey buñ fi nekkee di ci yéen dañ fiy guddee li ma tontu leer na nañ combat jàmbaar li mu dafa bari mooy amul yërmande amul lu ciy sedd kii man ak moom dañuy jëflante ba kenn daan moromam yàlla ma yàlla jox ndam li ci kawam. ayca Franc tontu question bi lan la sax Lac de Guiers 2. dañ doon dox sa combat nga ngay. combat bi saloon nañ fi mais nee na mënu bëri. bu xam nga loolu dañ koy yokk lii moo taxaw ñu toll. ah dégg nga sa waay mu wax. dégg nga bu ko defee. ko. kóor gi la jàpp keneen. beneen question mu gaaw. ñaari bëri ak mélancé ak suñu père jàmm. ah Sow Fane lañ leen nuyu Matar Ndiaye ñu ngi leen di nuyu gars yi waa staff bi fi teew journaliste waaye ñu kenn euh, dama ñëw ci euh, palmarès ñaari mbër yi ak seen euh, année bi nga xamante ni dugg nañu dugg nañu ko ci làmb li ci gën a doy waar ñoom ñaar ñëpp décembre la ñu dugg ci làmb soog na ko de ci làmb 22 décembre 2012 jëlee ci defet diggante ma Muslim Franc dugg ci làmb 27 décembre 2013 diggante ma kii Bamboula jël ci victoire yéen ñaar ngeen ñëw war a a a daje may ma yéen ñaar ngeen ñëw war a daje muy combat boo xamante ne combat bu doy Franc def 10 combats 10 victoires Sokh def 15 combats 11 victoires ak 4 défaites muy combat boo xamante ne combat bu doy waar yéen ñaar ñëpp yéen a bokk weer ngeen dugg ci làmb benn at nga ko jiitoo ci làmb Sokh dañu gis nga jël ki nga xamante ne mooy Franc est que du risque Franc nga jël ki nga xamante ni mooy Sokh adversaire bi da nga doon doon yuutu adversaire boo xam ne moo ko gën a kawe parce que seen diggante ak Lac de Guiers doon nga ko doon nga ko laaj lan moo tax ñu wënde def Sokh. jërëjëf gars yi ñu gàttal question yi rek ñu ñu ñu ñu toog ñu rek aywa Sokh. waaw moom li mu wax yaakaar naa dañuy ndax jël bi ma jël Franc du risque. ah non mu doon nekk risque kii lu ko def daal champion la. te damaa bëgg a nekk champion ci làmb te boo bëggee nekk champion ci làmb doo fi mooy champion yi leen jël jël leen moom moo ko boole kii dafa daan Tyson 2 mu nekk ndaanaan te am yëpp nangu nañ ne Tyson 2 daanaan te ba muy jël Tyson 2 ko daan am na ñu bëri ñoo xam ne boo leen nee Franc dina daan Tyson 2 pourquoi pas bul soppi lu kenn xalaat war nga koo daan laabot ak aussi jàppale yàlla. ayca tontu nga sa bopp la presque nga bàyyi baala posé rek moom la posé rek sa diggante ak laata ngeen. nee na boobu lañ doon dox nga jël kii. waaw li moo mujjee taxaw suñu borom dogal na lii moo mujj taxaw man ak Sow. naa ko xamal dara. waaw moom Sow bu yaakaaree làmb ay wax rek muy nax ba fa mun nga wax fii nag waaye ci géeru mag yow rek muy def loolu amul wax. ah nee na ko daan mu ngi. waaw wala gis nga suuf nga kat bi. bu ñu waxantee dëgg rek. biir géew ba. Sokh ak Franc tëju fa. lu yomb amul. fii wax moo ñu fi indi. wax jox moom ma wax delloo. Franc bu ñu tëjoo ci géew bi. Hmm. di jëflante de. te li la nit ñi wax ñu ngi nax de. te. li lay wax yaa ko xam li nit ñëpp di wax dégg boo ko dégg naa a bëgg a xamal combat bi jëluma ko pour wane ci benn ñàkk ci xam ne nit ñi dañ lay nax nga boole ci nax sa bopp aca coow beneen coow coow ci làmb ni rek waaye fu ñu mujj coow du am hmm. day day jëli day leer na day set wicc Franc xanaa xamoo ni maam ñi commentaire ci combat bi ñoo ma yab mais yow yaboo ma te doo mës a yab. non non ma yab dama ne la ci histoire laa la wax xam nga ma bu baax yaboo ma laa la te doo ma mës a yab te suñu ba pare nga may gën a respecté doo li ci cër bi ma joxoon. boo laa la ñuy commentaire ci combat di wa dinaa nangu ñu yàq ma ndax mënu maa war a di tontu ñëpp. Ah. mais bu ñu yeggee ci la gis nga. yow laa la wax jël bi ñu ko joxoon di ko yow. te buñ tëb rek wax de. te buñ tëb rek wax. mais man xam naa ne ñoom ñoo ma yàq mais yow yàqoo. waaw non loolu moom. mooy li ma ko wax léegi léegi rek loolu ñi nekk ci biti xamuñu soog ñoo ma yabee noonu rek mais moom mii li ma koy wax laa koy waxaat ci question ma mës a suñu bëree ba pare dina yokk cër bu ma ko ndax képp ku xam sox wala ma dem waaye bés ba li ma wax laa koy waxaat damay man du ma ku yàlla bind du ma wax lépp dinaa ko jox lépp lu moo war a yelloo na ba bës ko yow man wax laa am ci làmb te maa la ëpp victoire man yow defal ndànk rek bu ñu waxtaanee ci làmb maa am ñiy wax loolu dañoo xamul làmb rek dama bëgg nga déglu ma yow yaa ma njëkk a bëre bi ngay bëre géej baa mu laan bu ma maanaam déglu ma man dama bokkul ak yéen coow. man damaa ñëw di bëre ci benn saison. bu ñu bëri maa maa war a jël maa war a juutal. kii ñu bëri géej ba mu naan 27 décembre. 29 décembre nga bëri ak le mousse. 22 décembre. décembre. décembre. décembre. dama ne dama bëgg ngeen déglu ma. nee na ma ma rakam bi toog fii maa ngi koy nuyu ñoo ànd ba ñu booy. sëñ bi xale bu ndaw laa foo bës si man daa am luy génn mais woy bu bës baa boo taxee ma def la ko dem dangay doon dégg dama la koy def déggoo ma de wax bi ngay nekk di wax yi ma comprendre na loolu nga ci am amul problème waxal ma mais bës baa di nga xam ne lépp dëgg la. dama bëgg ngeen déglu moom bu baax. li may wax naxante xale sept mbër laa duggal top cinq maa ko ëpp ay victoire ñi ma daan ñëpp mosuma dóor mbër mu daal dama lay bëriloo bu nga tëdd mbaa mu bëri juum nga kii laa wax li muy wax nii nekkul ci moom gëmoo ko sax yow man ak yow suñu daje woon ci mbedd maag bu buñ doxoon ba daje ci mbedd maag yow France suñuy bët ñeent fi mu bëgg nga aw fa ngay aw am ci ay micro lañ toog rek di wax buñ daje woon ci bedd laa la wax li ma ñeme ñeme woo li may wax xam nga ko bu baax moo tax ma la nit ñiy wax ñoo may yàpp mais yow dinaa nangu ñëpp yàpp ko des yow. te suñu jëflantee ba pare ngay naan. c'est que boo waxee par exemple yow yaa moom làmb yow wala yow yow yaa yaa yaa ñàkk làmb wala xam nga du loolu. ay yaay bi yaay tëj man làmb ñëw ma ci ay wax làmb dama ñëw teg samay dama ñëw fekk ñi fi ñi fi ñëpp bàyyi ma daan leen bourse bi ma koy jël neuf victoire la tegale ama takat ma jël ko daan ko déglu ma rek bourse bi ma koy jël neuf ma ngeen boole mais yow danga dama nangu sa champion te nanguloo ma te xam nga kañ ñu koy nangu le 19 ci boo ñibbee sa kër toog dama ni dama fi fekk boo yi ma daan ñëpp Pape Mbaye suñu génération amul ku ko ci dàq bëri wala ñu ko mooy bëri Tyson bu neuf victoire la tegale ma jël ko daan ko ndigal bi ma koy jël benn koo ñemul bëreeg moom wax jee neex rek ak soq fair play bi muy teg ci làmb ndax man taalibe laa sama lépp taalibe ko la mais fair play bu ëpp boobu noonu sax moo indi yabee bii mais suñu bëree ba pare ci ngay xam ni yow da nga war a jox jël te di nga ko jox nga ne nga bëri taay bi la booy bëri taay bi dama si tribune bi bu ah. toog yooyu noonu xam nga di màtt di ñaanal yooyu noonu comprendre mais après xam fu mujj ñu la mujj gars yi di ko téye ñoom ngay mujj waat. am na solo kooku dafa wax ne nit ñi ñoo ko yàq wala nit ñi ñoo ko xaw a. Mohamed. deux fois. ba ci faral di toog daal di ko cikin da ake zuwa da wanda take nan ko ba ko ba yau da ko ba su da mutane wa ma ne kira fa sai gudu wa ya gudu ko da ta mun sai ka ba bi ko dan dan Kasi tingin ba naman doon? Kasi kumain ako kami kung dami meron. Meron lang sila. Wow. saa yi ñu déggoon tuuti rek waaw souvent damay dégg damay dégg question yooyu ay kii daal daan kee kii kii kii kii la man pour man laa mu dépassé na foofu parce que ñooñu ñu lim ñooñu yegg nañ ba pare te ñooñu seen palmarès la ñuy defar ñooñu dañuy liggéey pour yóbbu seen kër diw daan na diw taxul xaalis ba dem ci poche li may xaalis ci làmb moom mu koy man li may may xaalis ci làmb maa bëgg daa dëkk parcelle ma dëkk comprendre yàlla dogal adversaire am nekk Pikine man sama adversaire nekk Parcelles mu ñoo ñàkk bëri loolu moo ñu boole man ak moom man li wér te wóor mooy doomu Pikine la moom doomu Parcelles la na ko waa Parcelles gunge nekk ci ginnaawam lépp lu combat bi laaj ñu ànd ceeg moom man waa Pikine gunge moom lépp lu combat bi laaj ñu ànd ceeg moom ba le 19 incha allah ñu jëflante ñun ñaar lii lëndëm lépp dina leer incha allah waaw jërëjëf bu ñu. kon parcelle la dëkk man doomu parcelle la. xam nga loolu nag ci làmb lañ ko fekk ay bigg na parcelle ak face ak yooyu noonu yëpp amul njëriñ. maa waaj ma nee na luy lëndëm xam nga dafa amul lenn luy lëndëm léppay leer ak man léppay leer.